mbër. waaw. benn instant euh, je pense que instant bi blague. il est temps. il est temps de man ci li ma jàpp. mu marqué ah. Tamiz Naaw Black ñëw marqué son empreinte dans la lutte sénégalaise dans l'arène. il est temps nga ñëw jël li nga mën. Mm-hmm. est-ce que pare nga wala pare woo Black. mën ngay xool ndax pare naa wala pare baax rek man maa lay gis. Ah, boo ma xoolee baax di nga xam pare naa wala pare. mais xam nga lan mooy sa problème. yow da nga jàpp ne instant yii mag yow ñoo am na ñuy seetaan. loolu moo waral mooy samp laaj mais est ce que place pare na instant bi. moo tax ma ne la. ñuy seetaan seen jëm bopp. buñ xoolee bu baax. nga xam kii pare wala pare. dama dégg vraiment si ñoom naan maa ngi entraîné maa ngi entraîné. wax ju bëri la rek wax ju yàqu mais ku si Hein? wala ku dox wala ku dox sax ku dox. Ah. waaw bu doxee rek bu doxee nga xam ne kii doole bi moom la doole moom. d'accord kon euh, ma affirmé instant bi yaa ngi ci état. n'est-ce pas. waaw saison bi di des ñu ubbi bariwul. yàlla du dara dara dara dara depuis quelques jours mu war a ubbi officiellement. du xamul confinement du xamul confinement bi. Mm-hmm. bi sax dama doon taal sama moto dem di entraîné ba Maliga. ci confinement bi ci

mais dugub bi moo am. dama koy am sax Black foo jëm. fu ma jëm jooru laa si kaw laa jëm si gars yi si kaw laa jëm. Ah, si kaw nga kaw laa jëm. ok sama bët fu ma ko teg si ah. kaw laa ko teg. si kaw nga teg si kaw laa ko teg mbéy mel ni fu ñu nekk. waaw ah. fa laa teg sama bët. d' léegi instant bu dee nag bëree la dàqul ma bu dee nag jommu entraînement la dàqul yàlla nag mooy maye. waaye ñaan si borom moom kàttan ma rek. baax na léegi instant bi ma wax ak yow da nekk sous

moom ma xam xam nga moo ma jaaxal. Mhm. nga xamante ni tey su ma ñëwee su ma ko xoolee tey dinaa mel ni picc su ronam comprendre nga. Mhm. mu leer ma ne kii fu ma téye du ma rëcc. Mhm. kooku moo ma jaaxal mais ku ma xam ne sama morom la ku la mu may jaaxal. nay naaw bu naawee ma capté ko. léegi euh, noo nooy defam na. waaw mooy def déggul ma. maa ngi gis may sotti ma ne ma bajaan si laay wax ci boppam. ma bajaan. ah bu ma bajaan bu ma bajaan bu ma seen. nee naa la nay naaw bu naawee ma capté ko. boo ko capté noo koy def. su ma capté. waaw luy naaw boo ko jàppee noo koy def. man maay laaj yaay tontu. luy naaw su ma ko jàppee laa la waaw gars yi dañu gis sama gars yi dañoo génne slogan bu bees. Hmm. mën naa naaw mën naa fóot te luy naaw su ma ko jàppee. kenn du ma wax ni ma koy laaj. moom bi laay tudd rek sànni. ok ce qui veut dire que ne mu bañ a na day taat. ah ba tamit nee naa la luy naaw su ma ko jàppee. boo bi laay tudd sànni. ah moo tax man da nga bëgg a wax ne mu bañ a na day taat. dama ne la. mën naa naaw mën naa fee te muy naaw suñu ko gàddee boobu laay tukki sànni. de toute façon man sama question dafa leer foog am ku dem am ku a wax ne ma la wax dama ne la dama la koy waxaatal mën naa naaw mën naa fee mhm. te luy naaw su ma ko jàppee. Mhm. dañ koy gudd. d'accord léegi boo jógee ci ëmb bëccëg sànni ñan ñooy taxaw sa kanam. ñuy taxaw sama kanam bëri nañ. comme kan waaw man. loo bi bokk ma fi de man fii gisuma loo de làmb mooy tërëj rek mais fii gisuma loo mais boo jógee waaw su ma fi jógee mais boo boo classé dossier Eumeu Badiane dama koy classé boobu moom waxatuñ ko moom man eh, bu subaa man man man bu subaa ma yàlla may wér rek dugal nga sa palmarès Eumeu Badiane dugal nga ko ci palmarès waaw léegi après kan mooy taxaw sa kanam bu subaa xam nga moo jógee si maa ngi koy ñaanal wér moom it mu ànd ak wér ñëw ñu teg ko si sport waaw yàlla may na ndam si kawam ndam bu rëy ma jël moom jógee ko gars yi sama kanam ñoom tigoo tigoo man tigoo xarit bu yaayam ay ñoom booy Dakar man tigoo man tigoo xarit bu yaayam tigoo bu pigé da ngaa ñeme jël avance tigoo yow pour tigoo man man ñëwal lekk avance nga ne ma tigoo yow nag fit bu rëy bi nag pour la sëñ bi eh jugóom ma ma ne la du 15 heures dama toog sama kër oh. ah wante loo bi di naaw may wax lu ma neex lu ma wax lu ko gëm li ngay wax nii da ko gëm wallaahi boo classé ma bëree ëppuñ ma fit uh-huh. gënuñ ma nekk ndaw uh-huh. gënuñ ma ñemee entraînement uh-huh. te man xam naa ne de bu pënd wuuree wallaahi ansi ma féete kaw ba ci daal yaa fi tudd pour tigoo xarit bi yaay ko jël ay tigoo xarit bi yaay oh. ak booy ba booy Dakar booy Dakar war a bëri euh, booy Kër Masaar bi nu mu tuddati tur bi laay fàtte te booy Dakar war a bëree moom mi la taxaw na. booy Kër Masar war a Petit Niang ay Petit Niang. Petit Niang non. yaa may dégg. mooy nag yaa ngi. moo xam man néew ma fi di laaxal laaxal de ay Petit Niang. ok ak waa ji daanoon nu mu tuddati euh, te mu dëkk Géejawaay. te mu gàtt ngeen mu dëkk Géejawaay. moom mu doon rek Mathieu Parera. waaw. Mathieu tamit nag boo dugal ci. samay morom bi dañ ñëw ñu bëree su ma jógee fii. waaw waaw léegi léegi léegi. léegi man nii déggal mu te yoon ma nee. dugub bi mu nekk mais mais tànnoo lu yomb tànnoo lu tane. wallaahi lu metti nga mën a mën a échangé. mënoon tànn lu yomb est-ce que naa ko ñaar. non ah? non. ah ko man ko baax uh-huh. parce que am naa ay xarit Casamance uh-huh. comprendre nga. Mhm. na ay xaritaas. non dafa toj àll dama lay laaj ndax man ma sama carrière léegi bu ma dara bëree ba léegi mhm. yow xam nga laa est-ce que balaa bi mosoo dal fi yow. non non. ah si ñu ma bëree ñëpp ñu ma bëree ñëpp. ñu ma daana ñu ma daan est-ce man man man dal naa foofu yow. te ñu ma daan. Mhm. bañ may daana. gis nga coono bañ fa def. say say adversaire presque amul kenn ku ñëw amul kenn ku ñëw jàpp ma faxas ma si ay minutes amul. te presque ñi nga bëree lu ci bëri ñu ngi bëri grand combat yi sànq. te benn yoon. amul benn grand combat amee sànq. waaw waaw moo tax mën a la. ab barke bëri na grand combat. waaw moo tax mën a la. Mm-hmm. gars yi nañ xaar rek. d' accord waaw léegi ñàkk a féete taxul moom. waaw léegi yow yow loo mën ci petit ñëw. waaw yow dégg nga lu mu la wax yow man ginaar boo ko jàppee noo koy def. man maay laaj yaay tontu. ginaar boo ko jàppee da ngay dëgg sa tànk si tànk yi. waaw dëggaat mbagg yi. jël paaka reen yi lu raw loolu mën naa ko si bëri yi. yaa may dégg. ay ginaar ak leen fu ma leen jàpp damay ñaar ba reen. après ñaar ginaar ginaar la. waaye ñii ay ginaar ñoom ñëpp. ay ginaar lañ. léegi léegi waaw léegi léegi da nga koy tudd Boy Dakar. Hmm? ku toll ci 10 combats 10 victoires. 10 victoires. xam nga luy 10 victoire. xam naa ko baax xamante ne bu baax 10 victoire mosul daal. Eh, waaw nga xamante ne bu baax bul toog fii di ma wax waxi Boy moom xam naa waaw moom Boy Dakar si boppam moom xam na moom bu baax. Ah, maa ngi koy ñaanal kaleeram gën a rafet nag. laf cat non rafet na nit moom waaw bu gën a rafet. Mm-hmm. parce que nit nit xol soxor. te yow amoo xol soxor. waaw mais dama ne ko dama ne ko. Mm-hmm. moom boo ko seetee ne ko kuy balaat. Mm-hmm. xam na kuy balaat bu bu dee na añaan newul si moom mm-hmm. xam na kuy balaat mais tamit bu ma jógee naa ko woo léegi waaw comme ni ma ko xamee comme ni ma ko xamee man ko rakk ji kan mooy balaat waaw comme ni ma ko xamee man mm-hmm. lan moo tëdd rek mais ay euh, booy Dakar mm-hmm. gay naa ko gay naa ko gay naa ko boo doon booy bambara bu doon bu jëloon arena bi euh, sept combats yi benn saison six victoire benn défaite euh, rakku la doofu Pape Ndoye sama avance boo ko yoroon la woon delloo ko ay grand combat laa doon dem di bëree di ko di ñib si waat passé. gay ko da ngeen mos a daje. mais dama ñëw di leen bëreel ay grand combat ñun ñuy bëree ay petit combat. ok da nga daan bëree grand combat seen kaw. ñoom ñuy petit combat te damay ñëw daan te mosuma fa daanu. seen area boobu noonu. seen tali ñaari tali seen tali seen koñ. ba mu drapeau def drapeau jour may xam grand combat. te ak comme te da nga dem ba dafa daal. gis nga cëg la mm-hmm. jël amaana moom su ko moom gëmoon na mu naa si biir géew bi koñam la saltel ma xam nga def na lu ko neex gars yi def nañ na ma foofu jaay nañ ma doole. Mm-hmm. yaakaar na man tàppal la man Saalum laa dëkk judduwuma fu am lamb rek si àll ba laa juddoo mu xonk ma kon man su ma ragalee rek damay yab samay dëkkandoo yab samay mbokk. Mm-hmm. wallaay en fii luy dem nii ñëw barki alxuraan karim nga dem jàpp ko daal. nee naa la. non rakk ji non ma juddoo. lamp tàkkul fa. courant tàkkul mhm. lañ doon taal. yaa may dégg mu leer ni nga xam ne bu fayee da ngay yóoxu de. Mhm. man bu mën a nekk. dégg naa la dégg naa la naa la bu baax rakk ji on mhm. yaa ngi ci lu dóor dóoraat maa ngi ci lu dóor dóoraat ah, question bu lay posé nag yow euh, moo fa dóor dóoraat waaye maa fa daa ko bëree. sama question dafa leer dama ne ni yow bokkoo ci. man bokkuma ci waaw yow yaa may jox kan nga jàpp ne moo fa daa ko bëree. ñu fa ko bëree. waaw kan dafa leer. sos moo fa daa ko bëree. jos waaw mais jos bàyyi na bëri. non sos bàyyi. bàyyi na <laughs> waaw moo fa daa ko na. léegi même même bu bàyyee même bu bàyyee moo fa daa ko bëree. ay booy moo fa daa ah, a tontu. question bu ma lay posé yow bokkoo ci mhm. làmb ji wër ngeen këf kan moo fi dàq bëri. loolu jarul laajte moo dàq moo si dàq bëri. Modou Lo àdduna moo loo gis. la gëm ko li da ko gëm. barki baaje sa waral. Mhm. àdduna moo fi dàq bëri du question mhm. a a toog un an bi mais sa xarit la Modou Lo sa xarit la Papa Sow